ni kenn ñëpp maanaam boo du ma wax que seen xajmaal yi jullit yëpp ko war a yëpp ko bokk de ndax amul amul amul amul sens interdit fenn amul fenn frontière kër maam sa seen xajmaal ji fu ko neex daal ës hmm. du ko fenn de la part loolu lu yàlla def ci moom la parce que li ñuy def moo daal dafa am benn wax boo xam ne hmm. euh, touché na euh, mboolem kuy defar seen xajmaal mais mboolem ku bëgg nit ku dëgg tamit touché na hmm. soxla ma nekk président soxluwuma nekk maire soxluwuma nekk dara li ma bëgg loolu ne daal de sax seen page te incha allah loolu xam naa ne yàlla dana ko def incha allah loolu day dem ci yow naw nañ la ci trop li mu bëgg a doon nag jar nay ñaan yéen yéen ñii di ñun ñii di xeeju Seydi Hadj Malick moom li mu wax jar nay ñaan ku def ñetti fan ci bàmmeel wallahi boo sañoon Seydi Hadj Malick sa sëriñ jërëjëf déggoo mu de ku def trois jours ci bàmmeel boo sañoon ni bu ma yëgoon alaaji Malick di sama sëñ Babacar nee na waa sëgi tubaab chrétien yi tëdd fii yàlla waxagul seen i mbir dara ndax rus Seydi Hadji Malick waxuma ak ñun nag léegi xaar ma dem jël Abdoulaye waaye sa jikko sa jëf ak sa jikko moo leen di walla ndax yor ba pare yaru yàlla ne ku ma nar a dimbali loolu lay defal su ma la naree yar dama lay jox nga yor su ma la naree yorloo dama lay yaruloo su ma bëggee nga maandu dama lay jox secret su ma bëggee nga tabe dama lay jox wërsëg su ma bëggee nga bari xam-xam dama lay jox ab xame te Moustapha Moussa mi li ma wax du liñ ko musal ndax mu musal mucc ngi daje ci Moustapha te Moustapha nga musal ndax yëm la musal kon fu nu toll lay ñaanal. <laughs> dëgg la yow nag sa yaay ma boole ma nag yow ca Màkka. waaw dëgg la ma allah barke xam nga asi ma ne ko xam naa ko nii dinañ daje waaye ñu ne tuuti ma ne ma ne dénku naa la ko. dee ko ñaanal te di ko éduquer ma ne ko bu ma aidé ma éduquer ko ndax su la aidé waroo ko éduquer waaye koo sa <laughs> papa ma ñëw fii daaw mu woo ma ma ba ci kaw. bàyyi àll moo ma jëkk a dénk ab saag ñuy dem màkk ma ne ko bàyyi àll yàlla du alak sa doom du la alak ndax alal yàlla nga delloo yàlla te alal bu la lalalee ba ñëw te delloo ko yàlla dalay alak kon bàyyi àll alali réew mi la woon waaye Cissé sees ko nag yaa Cissé gaañu yow lañ tuddee Aziz Al Amine mhm. booy ñaante li woo Amine nga ñaan nga du nangu Al Amine lañ tudde daa baax mu dab leen gën leen a baax dëkk jag saa luñ bëgg a saa mu jagal kon ku la jege jag waaw waaw waaw soxla benn waxtaan bu ndaw boobu kaw kaw laa la yow ñu wax. waaw li li ngeen wax lépp ni nga ko li nga li nga ubbee moom moo am moo am solo. mooy nañ ko tëjee ñaan. waaw waaw dafa ñaanal ñu képp ñëpp maanaam boo du ma wax que seen xajma bi. jullit yëpp ko war a yëpp ko bokk de. ndax amul amul amul amul sens interdit fenn amul fenn frontière. kër maam sa seen xajma bi ji fu ko neex daal. ës du ko fenn laa loolu lu yàlla def ci moom la parce que li ñuy def moo dafa am benn wax boo xam ne euh, touché na euh, mboolem kuy defar seen xaaj mais mboolem ku bëgg nit ku dëgg tamit touché na hmm. soxla wu ma nekk président soxla wu ma nekk maire soxlu ma nekk dara li ma bëgg loolu ma nekk daal de sax seen page te incha allah xam naa ne yàlla daan wax incha allah loolu lay dëgg ci yow naw nañ la ci trop li mu bëgg a doon nag jar nay ñaan ah, ah. yéen yéen ñii di ñun ñii ah, di xeeju Seydi Hadj Malick moom li mu wax jar nay ñaan ku def ñetti fan ci bàmmeel wallahi boo sañoon Seydi Hadj Malick sa sëriñ jërëjëf déggoo mu de ku def trois jours ci bàmmeel boo sañoon ni bu ma yëgoon alaaji Malick di sama waaw sëñ Babacar nee na waa sëgi tubaab chrétien yi tëdd fii yàlla waxagul seen i mbir dara ndax rus Seydi Hadji Malick waxuma ak ñun nag léegi xaar ma dem jël Abdoulaye am nga jàmm waaye alhamdulilah naka réew mi waaye ñu ngi sant yàlla bu baax tey nga bokk ak Abdou Aziz Ndiaye euh, ndey ak baay muy jëf-jëf ci toll nii tey sa tey euh, looy yëg bu ko Abdou Aziz ma dem yóbbu kii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 Bonjour, salam alaikum. Je suis Mouminatou, responsable force-vente de Luxury Home, votre showroom de référence en mobilier et décoration d'intérieur. Aujourd'hui, je suis très ravie de vous présenter notre showroom et l'ensemble des services que nous proposons à notre aimable clientèle. Chez Luxury Home, Nous comprenons l'importance d'avoir un intérieur qui reflète votre style et votre personnalité. C'est pourquoi nous vous proposons une vaste sélection de, meubles de maisons et de bureaux, ainsi que des options de décoration d'intérieur qui vous ressemblent. Et bien sûr, c'est pas Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas juste à la vente. Nous accordons une importance capitale à notre service après-vente. de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette présentation de Luxury Home. Nous espérons vous accueillir bientôt dans nos showrooms où vous aurez à découvrir l'ensemble des mobiliers de luxe et les services exceptionnels que nous proposons. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour planifier une visite. À très bientôt chez Luxury Home. Customer satisfaction our priority.